العليم الحكيم mbokk yi gannaaw bañ sante yàlla di dellu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq di jiital suñu nuyoo ak suñu ziar ci suñu borom kër bi nga xam ne moom la ñu àndal waaye mu yombalal ñu yoon bi tamit yombalal ñu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ndax bu ko neexoon it tënk ko ndax kàddoom la moo ko di ko ñaanal borom subhanahu taala yàlla na ko yàlla jàmmal di nuyu suñu père mi ñu àndal moom tamit Mouhamad Ba ci taxawaay bi nga xamante ne bii taxaw na ko suñu côté saa su ne ci jàppale ñu di ko ñaanal borom subhanahu taala yàlla na ko yàlla sàmm moom soxnaam ñoo xam ne ñoom lañ àndal mu Ba di nuyu ki nga xam ne mooy suñu mag Seyda Fatima Lo di suñu mag ci wàllu deret waaye di suñu mat ci wàllu diine mag ci wàllu diine nag moo ëpp solo parce que borom subhanahu wa taala moo ne innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mbokkoo bi gën a am solo mooy mbokkoo diine mbokkoo deret di gërëm ci ki nga xamante ne bi tey moo ñu tijjil suñu mag suñu xarit soxna Anta Diop ndax képp koo xamante bi nee ngona la ci buntu kay ba ko buntu ci dina buntu aljara ko la wo ci kayu and jëm fan jëm ci yoon bi yoon sallallahu bi wasallam te war takko ko yene na la yiw kon yiw bi nga xamne yene nañu ko ak tuyaaw bi nga xamante bi yene nañu ko yàlla nañ ci ëppale ñu ko ñaanal borom subhanahu wa taala mu sàmm ko yàlla guddal fanam wëral ko yalla dëgëral ko waye bo la ko ci digeen yi nga xamante bi ñom la yalla di teral ëllëg Euh, di nuyu ñi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo jàkkaarloo ñun bi nga xam ne di jàllale suñuy kàddu ku ci mel Cheikh Abdallah Ba ñoo ngi koy ziar Abou Omar Sëriñ Sey euh, di jéego beneen mbokk bi jàpp ma turam mais ak ñoom ñëpp rek ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen wàccee seen wàccuwaay di leen bu subhanahu taala jox mbokk julli di tey dañu fi dajale bokk na ci lenn muy fàttalante suñu wàllu diine kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne balligu anni jottali ko ak wala nga jottali jullit ñi mën cee jëriñu kon tey loolu bokk na ci suñu teewaay ak li tax ñu déplacé wu ak li tax ñu toog di wax ne la kii wax du borom xam-xam waaye dafa fekki ne dafa am fu tënk suñu bopp ca aaya ba di borom subhanahu wa taala da wax naan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar looloo waral suñuy kàddu bi jub ndax dañoo bëgg a bokk ci ñi gën ci xeer wi waaye bëgg a bokk ci ñi nga xamante ne bii dañuy taxaw ci amru bil ma'ruuf wa nahyu 'anil munkar ah gannaaw loolu mbooloo mi tey ñu ñëw ci benn tomb rek ci jigéenu jullit comportement xam ne war na ko am gannaaw bi Seyda Fatima Lo di génn ci suñu biir néegu sëy ci góor ak jigéen kenn ku lekk ci ñu nan la a téye sëy boobu jaamu yàlla. tomb bi ñëw ñun andi tey nag mooy tey en tant que ñun jigéen tey lan mooy suñu rôle tey ci société bi ñuy dund ak suñuy comportement ak suñuy nekk nan la war a nekkee ndax dañoo nekk ay jigéen yoo xamante ne bii tey dañu andi yeneen royuwaay yoo xam ne du suñu ay roy du ñu nekk ñoom nekkuñu boo ko xoolee tey ci jamono yi jii ñuy dund ci àdduna bii ñuy dund tey façon royuwaay bu nekk indi nañ ko jigéen ñi ci lan ci ay feccikat ci ñan ci ay waykat ci ñan andil nañ la télé sa biir kër doyatul ñu andil la portable ci biir portable boobu nag dëxañal nañ la ci façon bonte bu ne ak ñaawte bu ne te yow jigéen doo ko comprendre te tey comprendre na yow téléphone bi mi ngi yàq mooy boo demee ba yàqule wala mu yàq la boo demee ba nga xamante ne bii tey futti nga sa awra en tant jigéen te xamoo sax futteeku nga weer nga sa bopp yàq nga sa bopp balaa nga koy xam fekk tas nga ci internet yaa ngi YouTube yaa ngi Instagram yaa ngi TikTok yaa ngi ci bar ba ci Facebook bi ñan nga fay gis tey ay jigéenu jullit yan jigéen la mooy ñi nga xam ne ñi ngi teg di wooyee seen bopp Aïcha ñi ngi wooyee seen bopp Khadija ñi ngi wooyee seen bopp Fatima tey tur yooyu ci ñan lañ ko xamee woon mooy saxaabatul kiraam saxaabiyaat yi ci nañ lañ ko xamee woon mooy waa kër bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoo doon àndandoo moom nekk ci keppaaru yonent bi tey tur yooyu ak Fatima yooyu tey ñooy taxaw ci podium ñu futti seeni yaram tey di leen jaay ci ay góor kon tey ñun ci ban réew lañ toll ban Sénégal lañ toll ak ndax dégg nañ aaya bi nga xamante ne bii bi muy wàcc ñu ngi wàccoon ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wasallam aaya bii ngi wàcc ci biir kër muy lan muy sootul ahzab borom subhanahu wa taala di ko wax ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا am وكان الله غفور رحيم mu ne eh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal say soxna ak say doom ndax bu yemoon foofu ñun dinañ am sañ-sañu tey hijab déedéet parce que dañ bi mu wàccee ci biir kër yonent bi ay soxnaam la wax ay doomam waaye lu ci nekk daf ko ne wa nisaa'il mu'minin ak bépp jigéenu jullit ndax tey ñun duñ ay jigéenu jullit tey boo xool na yow tey ne la doo jullit nga mer. waaw lan moo tax tey santaane yàlla bii di muuraay nangu woo koo jëfe en tant jigéen en tant que yow nga ne jigéen jullit nga te da ngay bëri ñu bëri tey di wax ne man jigéen la jullit laa waaye bokkuma ci aaya bi li tax parce que dafa am foo canaliser sa bopp kon génne nga sa ci biir jigéen jullit ga parce que yàlla muy wax dafa ne woon nisaa il muminin ak bépp jigéenu jullit mu teg ci lan mu ne ko yudni niina alayhinna min jaraabi bi hinna nañu wàccee seen hijaab yi nañu wàccee seen muuraay mais ñun tey mala asaf tey li ñu daan ñun jigéen jul ñi tey mooy damal futti sa yaram xóotal xàppati xeesal mees di wane ne yow tey da bokk ci àdduna da nga bokk ci yi ndaw nga da ngay dox sa jamono te àdduna bii benn màggale boo xam ne dañ ko maquillage adduna daaru li man laa daara la kër la waaye du kër boo xamante ne bii daf ñooy dafa nekk góor kër la boo xam dañ fi war a préparer suñu ëllëg mais nekkul kër boo xam ne yàlla daf ñu fi indi pour lan pour ñu koy moy ndax lan dellu ci aaya ba borom subhanahu taala di wax naan wa jinna wal insa illa li yaabuduun borom ne dafa bind ak jinna pour lan pour ñu jaamu ko indi wuñ fi pour ay fo ndax lan mu ne delluwaatal ci aaya ba afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasan wa annakum ilaynaa laa turjaun ndax da ngeen a foog ne man dama leen a bind pour ay fo ak caaxaan ak mbumbaay ak lan top mbuuxum aduna wala da ngeen yaakaane ne bis du ñëw ngeen wat ci sama kanam moom borom subhanahu wa taala aha kay pourtant ñuy delu lay min ha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha ha nuxrijukum lu ci borom bi teg taaratal uxra borom subhanahu wa taala mu ne dama leen bind ci lan ci suuf su ngeen deewé ci suuf lañ leen di delo waye bu ngeen di genn ëllëg yowmal qiyamah ci suuf si lañ leen di génneewaat beneen yoon ñu tasee bi ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Jalla wala borom subhaanahu wa taala kenn ku nekk ci ñun nag mu lay ci lan ci jëf yi nga xamante ne bi daf ko doon ci lan muy examen bi nga xamante ne bi daf dafa indi ci kaw suuf yow doomu aadama pour nga def examen boobu résultat yaa ngi koy jëlee ci borom subhaanahu wa taala bi mooy lan en tant que yow jigéenu ci bokk na ci ci muur sa yaram bokk na ci nag ndëbb say awra waaye nag muuraay googu ndax yow yaay tànn yow jigéen ne man ni ma ko sentir laa koy defee déedéet dafa am ay yoon dafa am ay charte dafa am ay shurut yoo xamante ne bii moom la la islam tegal na la jigéenu jullit bi de buy muuru nii lay muuroo maa asaf nag ñun tey muuraay de génnee nañ ci ay feem génnee nañ ci ay modèle génnee nañ ci façon bu ne dem nañ ba muuraay gi léegi nekkatul jaamu yàlla mais léegi fashion nañ ko def façon col bu ne andil nañu ko comme que tey tubaab bi xeex na ba sonn mënuñoo xeex mu créer ñu col yoo xamante ne bii ay col fashion lay doon mënu leen a ñàkk muur de waaye bu ngeen muuroo du ngeen muuru pour santaane yàlla mais da ngeen muuru pour lan pour ay feew ak i mode ak modèle moo tax da ngay gis jigéen boo xam ne ndeysaan dafay muur jël musóor nga teg ko ca kaw nee naa du ma comprendre du bokkul ci lu may comprendre nga jël hijaab nga teg ko ci sa ba pare. jëlaat musaa musoo tagal ci kawam ndax lan yaa ngi génnee taar boo xamante ne bi islam daf la ko nëbbuloo moo tax borom bi dox naa waxaw na fii bu yuuti kunna wala tabaraj la tabarujal jaahiliyati ula mu ne jigéen ñi dañuy sax seen biir kër bu ñu génn génn ñu réew njëkk ña da ngay gis jigéen boo xamante ne bi dafay sol ba jekk amul soxla amul dara lu mu war a doxi mais ne wane taaram boobu na ko fesal ci mbedd bi ñam la koy wan ay góori jàmbur soxna si sa sañse bi nga sañse sa borom kër moom moo ko war a gis sa cuub bu rafet bi ngay wane sa borom kër moom moo ko war a gis sa càq bi ngay génnee teg ko sa sa borom moo ko war a gis jees neer bi ngay sol sa borom kër moo ko war a gis muuraay gi modèle yi nga koy defar ak feem yi nga koy def sa borom kër mooy ki ci yeeg moom moo ko war a gis tey nag ñun toll nañ foo xamante ne bii tey balaa ñoo génn la gën a rafet ci suñuy armoire la ñuy génnee sol ko moo tax di nga ci gis jigéen bu solo ba war a génn doomam taxaw na ko yaay foo jot aha kay parce yaay li ko doom xamee ci biir kër gi mooy sërëg bi set wala robb bu bon moo tax saa bu jugee dem sañse rek doomam dina ñëw posé question ne yaay yow fan nga jëm parce que tàmmul doom ji tàmmul yaay bi solo ci kanamu baay tey baay bi war a wàcc fekk yaay sañse jeex leeram bu rafet doom di xaar baay doom ji tàmmul loolu doom ji tàmmul gis cuub bu rafet ñu solo ko baay mais baay sañ lañ koy solo ndax da cee ndax moom loolu la yeyoo déedéet góor gi dafa dem ci bitti dañ dañi ba sonn naaj bi xiif mar tonn bu ñëwee ci ay bëtam daf ci war a gis jigéen yoo xamante ne bii dafay pare ci kaw ba ci suuf sol lu rafet sol lu jongoma defar xar kanam ba mu rafet maanaam asaf ñun jigéen ñi tey nag bitti bi la ñuy makkeewul da ngay gis ku ci war a génn dem taliba rek dina jël poudre jël kenn yoo fu ne mu takkal ko fa fu ne mu laal ko fa bu ñu gisee ci kër gi ndax lan bëgg na kenn ne ko tey de yow tey da ngaa jokkoo ma mu ne ko ah nii mu ne ko billaay yaa ngi wàcce wàcce woo dara parce que ki nga war a wàcce mooy sa biir kër ki war a wax a a wan sa taar muy bëgg muy muy am muy sentir am yëg-yëgu xolam mooy sa borom kër ma mais nekkul pour mbedd mi kon ñun lan mooy suñu taxawaay en tant que ay jigéenu jullit ñu dem tey ba xàmmeetuñ jigéenu jullit bi. ak jigéen bi nga xam ne jullit parce que jigéen jullit ñi ak nit ñi jullit ñoo bokk même comportement da gis jigéen bu muur ba pare jël lan sol jiinam ndax yàlla mooy bopp rek la waxoon nañ ko muur déedéet bopp rek lañ war a muur mais yaram bi yëpp lañ war a muur moo tax borom ndax dégg nga def naan al mar'atu kulluha awra ma adal wajhi wal kaffay jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak i tënkam ñu ne suñu problème mooy mun nañoo sol lu ne feeg bopp bi kol gi ni ñu te koor gi ngay teg sa bopp sax genre koor lay doon rek fii rek lay yem ci baat bi rek lay yem dënn baa ci bitti setay bi nga takk sax dañ koy gis lépp yi nga lettoo sax forme sax dañuy xam ndax loolu moom mooy xijaab ndax jigéenu démb ñoom ba ñuy sonn moo tax suñu yaa na keroog ba aaya bi wàccee biir kër nabi bi salaay salaam nee na mbedd Màkka yi foo xool dafa ñuul kukku niir nañal saxaabiyaat yi boo xamante ne bii ñoom buñu masaan dégg na ak yonam tam ci saasi la ñuy jëfe waaye ndax dañ ko doon jëfee ñoom ni leen neexee déedéet mais ba dañ ko doon jëfee ni ñi di dëppoo li nga xam ne moom mooy njàngale borom subhanahu wa ñu ñun nag tey c'est que cest moo ñu solo ci suñu diine islam moderne musulman non pratiquant xaw ma comme ni ngeen koy waxee solo ba pare rafle solo ba pare rafle muur nga waaye li nga sol lépp sa awra yaa ngi ci bitti dënd bi mu ngi ci bitti li nga sol mu ngi natt sa forme li nga sol soo wanee ginnaaw sa ni mu comporté ci la ci am tant que jigéen jullit boo xamante ne bii moom dafa ñëw pour jëfe santaane yàlla bi kon bu ñu naxante bu ñu nax suñu bopp ne yàlla lii mu ñu sant ëllëg lu ñuy laaj la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax naan al qabru sunduqul amal mu ne bàmmeel moom mooy magasin jëf yi kon lépp loo koy def lépp loo koy jiital yow jigéenu jullit bi war moo koo jàng xool ko hijab bi nga xamante ne bii moom ngay defit war nga jëm jàngi hijab bi lan mooy shurut bi lan mooy yoon wi nan la war a tëddee nan la war a mel nan ki def yan comportement la war a am mais bu jël rek jël tëb rek jël kol nga raxasoo sol la neex rek génn dem pourtant muuru naa da nga ciy tasee nit ne ko sa xol bi mu ne pourtant muuru naa de bënn baa ngi ci bitti maa ngi jéggalu weer yaa ngi ci bitti pourtant nee la muuru na kon tey jigéen moom ban ban taxawaay la war a am ci boppam ban comportement la war a am ci boppam waaye tey li ñu yàq mooy tey da ngay gis ay jullit ñoo toog di xasaat jigéeni jullit ji ci seen hijaab yoon tey ñenn ci ñi ñuy wax ay jullit ñoo toog di ŋàññi di kintige santaane yàlla ci kaw suuf moo tax dama naan xamaguñ fu ñu jëm ñun en ay jullit yoo xam ne ay jullit ci suñu biir ñoo toog di ŋàññi li nga xam ne mooy santaane yàlla bu njëkk de da nga daan gis ñu dul jullit ñooy ŋàññi santaane yàlla mais tey ay jullit ñooy ŋàññi santaane yàlla yenn muuraay sax boo muuroo sax ñii moom seen biir sa ñu leen ñëpp a critiqué lii moom xalaataguma ko lu mu def ndax bàkkaar la déedéet pourtant santaane yàlla la def ndax nga koo defee noo xamante ne bii noonu la ko yàlla bëggee yow nga ne koo defee noonu ndax yow a xool wala yàlla la yi nga xam ne borom subhaana taala daf koo digle ak di ko tere ndax nit ñi lañ ciy xool wala borom subhaana taala dañ ciy xool dama naan borom bi dañ a xool ci suñuy jaamu yàlla. te hijab boobu képp koo xamante ne bii tey jii defoo ko nga nekk ab jigéen jullit a leen ne futti sa yaram boobu ngay futti sa yaram bakkaar nga ciy am ba sa parce que santaane la ci biir kër yonent bi bu wàcc si kaw gannaaw gannaaw ba nga nekkee jigéenu jullit tey nag jël nañ muuraay am ñoo xam ne ñoom lañ ko moomaleel da ngay dégg ñu ne ñi ñooy ibaadu rahmaan ñoom lañ war a muuru déedéet yàlla ba muy wàccee aay ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa new ko sa kër rek la wàcc de waa kër Omar bokk ci waa kër Abubakar bokk ci déedéet ñëpp la ci maasal le tey nag muuraay dafa am kuréel buñ ko moomat le ndax kuréel googu rek ñoom ñoo war a nekk ay jigéen jullit déedéet kon képp koo xamante ne bii jullit nga te nanguwoo jëfe santaane yàlla bii di hijaab a leer ne saa boo xëyee ñi ngay bindal bàkkaaru fukki sa yaram ba keroog ngay jël xol teg ko ci sa kaw wala ba keroog ngay génn àdduna bu boobaa ne borom bi lay soog mu mbugal la borom soog mu jéggal la parce que loolu suñu mbir mbiram la yan ma dem ëpp na loolu waaye almuhim liñ la mënta wax en tant que jigéenu jullit mooy ne muuraay du aada naar du aada malien du aada murtani du aada benn dëkk santaane borom subhanahu wa taala la waaye nag teg ci mu nekk farata comme jullit yi nekkee farata ak koor noonu la hijab nekkee farata nag ci bépp jigéenu jullit da ngay nga ne sañoo bañ a julli ndax dangay ragal du may yàlla soo julli ko dangay woor weer koor sañoo koo bañ a def ndax dangay ragal du may yàlla kon hijaab bi noonu ko war a defee parce que koor farata la julli farata la waaye hijaab bi mbokk yi farata la kon tey ñu lan mooy suñu problème ba mënuñoo taxawee santaane yàlla bii di hijaab beneen bi mbokk yi ñun jigéen ñi am nañ problème yu rëy ci ñàkk mën a yar suñu njaboot ci lan ci diine. ñàkk mën a tënk suñuy njaboot ci diine ndax talatuñu doom ñun talatuñ jëkkër talatuñ doom talatuñ kër yi nga xamante ne bii fa la nekk comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ne kullukum raa'in wa kullu mas'ulun an ra'iyyatihi ku nekk sàmm nga te li nga doon sàmm dañ la koy laaj. tey ñun fan lañ ci toll tey jigéen ñi koo ci gis mi ngi toj boppam ci fa mu jëm lan mooy sabab boobu <coughs> afwan luy sabab boobu mooy yaa ngi bokk fukki natt bokk nga bëccëg téeméer. bëccëg ñaa fukk bëccëg juróom fukk sa borom kër attanul loolu ndaxte lan ndaxte bu xëyee dépense baa ngi tege ci kawam facture courant bi mi ngi ñëw facture ndox bi mi ngi ñëw gaz bi ci kawam la tege ceeb beeg bi ci kawam la tege nga bëgg nag mu boole ceeb nag boole yow natt yow bokk yi mu bëgg la ko mu bëgg ne bët du yor waaye xam na du bokk attan nga dem ba dugg ci natt yooyu yëpp xamatoo nooy def nag. noy def nga toj sa bokk genn te yalla ne lo xam na sama sala ñu ko yalla fayal nee na jigen ni ñi dañoo def ko barage na dañoo genn kër yi parce que lan la li war wa barage na bokk moy dañoo yenu lu atalu dañoo yenu lu mënut parce que borom keur gi bokk ko bëggee teg mu ne la mënuma mako te yow ne nga koñ bi nga dëkk lepp lu fi tëgg di ko tulli en tant que jigen par force di nga genn waye bu fàtte ne yow kaw bu nga genné lo nga ay xalé ci biir keur lo xamantene bi say njabot lo xamantene bi ci sa suuf lañ waroon nekk ci sa pegg lañ waroon nekk nga war leen a yar pour ñoom nga préparer leen ba suba ñu mën a bokk ci seen société waaye ñu mën a tekk ci société bi dara te moo koy préparé bàyyi déedéet bàyyi islam ak ku sant mu génn dem uti ñëw jox la yar sa njaboot ngeen dundee yow na la toogal lii ñëw yow yaa koy yar xar yeeg bëy yi ci biir kër bi sax yow jigéen ñi ëllëg yow na ko yar yow la ko yàlla di laaj laa ne nit a ci noppam doom yoo xam ne yaa leen jur da nga ciy dugg ci kër. fekk lu ma juróomi xale am seen yaay mu ne dem na ca suba papa xëy na yaay xëy xale yi kañ lañuy desal kenn ñi ci am saas ñooy desal jànq wala desal maam ci biir kër bi xale yi fu ne lañuy toll talaam façon jikko bu nekk nañu jël ko dem ba gëm mi màgg màggee ci juróom fukki buntu yoo xam ne façon jikko bu nekk mi ngi ci buntu kër yooyu sa doom jël ci fekk kuy tox mu sànni megoom mu tox jël na loolu fekk kuy gees mu sànni morso ba jël na loolu gis kuy sàcc dem jëlal demal jëlal ma lee mu jël loolu xale bi di ginn ci loolu di màgg ci loolu ëllëg màgg nekk sàcc bu sotti wala agresseur bu sotti kan moo ko sabab yow yaay parce que yow yaa topp ko ñaxatu àdduna gis nga àdduna bii li fi nekk kenn mënu koo dawal léegi rek la fi nit mën a dawal ëllëg jëriñ ko muy la muy jaam borom subhanahu wa taala te pourtant jaam yàlla googu da yow jigéen boo ko saxoo ci sa biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama yi bu woon yàlla comme niñ ko ragalee dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc maanaam asaf ragal yàlla googu nag moo nekkul ci ñun mais bu ragal yàlla googu yow jigéen mi ngi ci yow jarul ngay tiit jarul ngay ragal lépp wërsëg dina la fekk ci sa suuf borom kër boobu nga toog di ko sàmmal njabootam di ko sàmmal këram di ko sàmmal alal ndax lan waxu yonent bi sallallahu alayhi wa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la léegi ndax dañuy jël suñu waxu yonent ak suñu waxu borom sànni déedéet dañoo war a jël waxu yonent bi appliqué ak waxu borom bu waaye ñu jël ña ca mbedd ma sànni yàlla ñi nañu sax ci biir kër i loolu mooy yërmati ci ñoom loolu mooy ci ñoom waaye loolu ak fegu ci ñoom waaye jamono euh, xale yi nga xamante ne bii ëllëg ñoom ñoo la war a yor xale yooyu ci bi ñuy ndaw yow jigéen da leen di préparé ci bi ñu nekkee ay tuut tànk ngay am sa jotu njaboot ci bi ñu nekkee ay tuut tànk ngay toog sa seen pegg di jël seen jikko di leen jox di jubbanti di teete ku nekk ci ñaawteef nga ne ko du nii la ku nekk ci na ko suñu noonu nga ko du nii nii la alalu jàmm nga teg ko ci yoon doogu lay nga nekk ci seen peg di leen gunge di leen gunge ba ëllëg moo lay permettre ëllëg boo demee nag ba âge comme ni koy waxee du ko sa troisième âge sa doom yooyu nga yoroon tey ñooy toog yow noppal par force parce que lan la parce que da nga amoon seen jot mais ñun jigéen tey ñu ngi ci natt mbootaay xew diw xewam ma mënuma caa ñàkk dem day eggul doomam ji tey xewam mais tey mënuma caa ñàkk dem nangam la ma ndawtaloon fu ma jëman ndawtal fu ma jëman natt ji fu ma doon sànni jàmbare lépp nga yem ko sa bopp indi sa benn sax ma boo xamante ne bii yow yaa ngi keneen sa bopp te mënoon ngaa ne dund dund bu teey bu la ci doylu ak doyloo la sa bopp sa borom kër boobu di jox moo tax al al qanaatu muy doylu képp koo xamante ne bii am nga ko da nga am texe àdduna li nga am texe àllaaxira parce que dina tax yu bëri doo tudd te di nga mucc tamit ci problème yu bëri te ñaari ci ay jigéen ñoo fi këpp keesu daw parce que tey dañu nekk ci jamono boo xamante ne bii àdduna bu tas sutura bu xawee lépp ngi ci penc tey li ci biir néeg li ci biir parti bi li ci biir lépp ngi ci internet bi tey ku fi nekk nattu jàmm yaa ngi ci internet sutura moo jeex ci suñu biir en tant que ñun ay jigéen tey lépp lu fi waaye def jël nañ sa photo wala amuñu sa photo ñu ngi ne fànn sa tur di wax gox ba nga dëkk pour sa borom kër nangam internet ngir lan ngir ko doxatum àdduna ndax loolu jar na tey dañ naan loolu jarul suñu mënoon may ba pare waxtaan bi. ngeen baa ñu waaye ngeen déglu ngeen déglu. ba kon li tax yow jigéen ëllëg sa doom yooyu nga mën leen préparer bañ am sa jot ci jamono bi nga nekkee jeeg bu ndaw ci nga koy préparer waaye li la koy may mooy ak muñ ak sablu mooy muñ lépp loo xamante ne bii loo waroon am la te sa borom kër bañu ko waaye amu ko waaye nga muñ téye sa ngor téye sa dignité ba ëllëg nga mën a yiir sa njaboot boobu ngir ëllëg ñoom ñu mën yiir moo tax di nga gis jigéen boo xamante ne bii day dawa dawa dawa dawa dawa daw te dawa doo gis mu ne fii laa ko def parce que dawalu daal moom natt rek lay daw jaayalu daal moom natt rek lay jaayal parce la bii boobu yëpp war amul sax ne ndigalu jëkkëram te li gën a daas ci jigéenu jullit mooy di dugg ci mbir moo xamante ne bii dëppoo woo ci sa kàddu borom kër jigéen dafay am kilifa. mbokk jigéen jigéen dafay am kilifa képp ku amul kilifa dina yilif jigéen dafay am kilifa góor ci biir kër kàddoom la am mu ne dafay dégg sama yaay naan yal na yàlla sàmm jigéen ci biir këram mu ne dafa war a sant naa bul dem mu ne toog naa noppi mu ne noppi naa bàyyi mu ne bàyyi naa mu ne jigéen bi sëy ci biir këram loolu la war a waaye bu fekkee ne yow en tant que jigéen jullit nga ne man lii lii dëgg ci àdduna yëpp man dinaa ko tulli ci dàll bu rafet ci mbubb bu rafet a a am te sa poosu jëkkër demeewul noonu même bu fekkoon ne borom kër gi sax yàlla mën na ko wërsëg boobu sax da ngay am tuuti raxma ci borom kër gi waaye day jigéen boo xamante ne bii day day xew mu am ci koñ ba mu ne xaatum bi soloon naa ko dem ci xew Anta Diop bi kon beneen bu xew amaatee du ma ko sol rëy na loolu rëy moo parce que dama koy xoole te amoo ko noo koy def danga koy lebi danga koy yem ki nga xamante ne bii ceeb bi mi ngi tege ci kawam facture baa ngi tege ci kawam ndox maa ngi tege ci kawam góor daw dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ ci bitti aku ñàkkam sonn nekk ci bureau wala ci service ba muy nekk wii muse wii muse wii muse wii muse ba yow ci kër gi na nga bëgg mu naan la wii manam wii manam boobu góor fu mu jëm boobu góor fan la jëm xanaa kon bu yàggee moom tuuti la ñu teg ko ci jaar daal di koy jaarale di yóbbu jamal ko nga daal di toogal sa njaboot yow daal di nag pare préparé bi beneen góor boo war a def loolu moo ne jigéen il faut ñu am yërmande ci borom kër yi di comprendre jëkkër yi di leen dalal di leen suturaal di leen yiir di leen ndax la ndax coono bi ñuy ci biti metti na torop ci ay góor yoo xamante ne bi day saan dañ lay woo di day teg tànkam këram balaa nga naan dafum sangu sax jabaram na ko ëwit tàcc ko regaju ko xanaa balaa ngaa laaj sangu ñëw yegg soo ko laajee ku koy laaj ku taxoon lan moo taxoon mu takk la lan moo taxoon mu préparé la la nga taxoon mu romb ay buntu kër yu bari ñëw andi la ci biir kër pour lan pour fu mu dalloo pour lan pour fu mu noppaloo pour ku ko moo tax yàlla danaa mun na libaasum lakum wa antum libaasum lahunna ku nekk kiiraay ne ci sa morom kiiraay boobu mbalaan moom nga war a nëpp borom kër gi waaye nag nekk mbalaanum jàmm mbalaan moo ne mbalaanum waaye borom kër bu daw daw daw daw daw ba yegsi doon ji di ko sa papa ndox mu nga papa bi doom ji la joxoon ñeent ak trente cent nga toog fi nga toog nag yow defoo dara digal may sa papa ndox mu naan tàngalawal sa papa añ bi mu añ lépp yaa ngi toog sëgg ci sa téléphone di whatsapp nag nag jéggi whatsapp maa ngi jéggul waxuma la ngeen waa groupe bi nag dafa am jéeg yoo xamante bi jéegi whatsapp lañ ñoom mun xëyee huit heures ci suba ba huit heures ci ngoon ñoom ñu ngi ci téléphone ñoom amuñu beneen programme vocal bu dem beneen la koy toog du nit dallu du ñu toppatoo jëkkër du ñu toppatoo doom tal ñoo sangu tal ñoo sañse tal ñoo defar néeg tal ñoo taal cuuraay tal ñoo luqati ruqaani luqati ko ñoom ñu ngi ci whatsapp bi rek. jël di partage ak yow di xanaa yëgoo nekk da ci groupe ba defoo ko parce que yow fi nga toog message bu dem yow message su koy toog te waxoo fa benn loo xam ne am na faayda waxi boosoo rek da ngay yoo xam ne dañoo créé groupe. cliniquement ku waxu mboosoo ku waxi mboosoo te yow ci biir kër gi nga nekk yow en tant que jigéen li yëpp war a mën a liggéey ci journée bi kenn xamul na te liggéey yooyu yëpp nekk ay jaamu yàlla parce que sëy bi njëkk dama naan nañ ko nañ ko ne xam ne sëy bi jaamu yàlla la ba pare buñ jiitalee ne sëy bi ëllëg luñ yàlla di laaj ci bàmmeel dañu koy laaj de gis nga ni ñu nekkee góor yi ak góor ñi ni ñu nekkee soxna yi kenn ku nekk ci ñun malaaka bi dina la yee nga toog mu la rew sa borom kër nan nga nekkee woon ak moom nan nga nekkee woon ak moom di ko ko tegal benn par benn muy moo di yow kon bu ñu jàppee ni ñun lii lu ñuy laaj la rek dinañ ko rafetal bu ñu jàppee ni ñun ne tane bi moom mooy borom kër yi ñu yàlla boole moo tax yaay ci naan yonent bi sallallahu alayhi bu fekkoon si jootal ni dagan na nee danaan jigéen ñi nañuy sujjootal seeni borom kër beneen bi yaa Aïcha mu ne yonent salaay salaam nee na jigéen ñi bu ñu xamoon góor ñi daj bu góor ñi seen lex yi dañuy jël di ko fompee seen pëndi tànk seen pëndi tànk yi ngir lan ngir daal jël yàlla jox góor ngir lan ngir maqaama bi yàlla teg góor ci kanamu soxnaam waaye ñu tey li ñuy mooy jóge yëpp nag làmmiñ beeg whatsapp bi la yam te ñu wax benn soxna boo xam ne nee na day toog moom di conseil jigéen ñi ni ñuy sëyee ba jox ma numéro dina toog ci tiktok bi ba deux heures du ba jàppanteeg borom këram borom këram moo dem ba sonn ñëw réclamé ko wala boobu kalaame ko ak koo xamante ne bii sama xarit la mu ne diw be dafa nekk ci tiktok nee na day conseil jigéen ñoom ni ñuy sëyee moom borom këram mu ngi tëdd ba deux heures du waa léegi ndax kii moom moo war a jox kenn leçon de morale ci wàllu néegu sëy yow ki nga war a toppatoo heure bu baax bi ci heure bu baax bi moom ci heure bu baax boobu moom moo ko fekk mu toog ca tiktok ba moom di tiktok li jëndiwul borom kër gi nga xam ne moom la nekkal ci biir këram. groupe WhatsApp bi am na njëriñ bu fekkee lañ fay jàngale lu am njëriñ la waaye nag ki nga xamante ne bii moom moo la indi ci kër gi bu wàccee lépp luy groupe ak WhatsApp ne ko ne daal di jublu ci moom parce que moom mooy groupe bu mag bi nag gi du nga toppatoo ko li jënti ko xool lan mooy xaalam lan mooy axwaalam mais da nga ci gis jigéen boo xam ne dina jël góor teg ko ay charge yoo xamante ne bii yan kookoo yena yena yena yena yena yena yen day saan mu dem ba boppam fu mu tunne ba bàyyi tànge ngir la ngir liñ ko teg la àttanatul liñ ko teg ci ay problème la àttanatul chaque jour ak mbubb bi nga war a jënd chaque jour bi nga war a jënd chaque jour bi nga war a chaque jour xew nga war a dem yërëbam la ca war a jox loolu yëpp nga teg ko benn nit pourtant bu ñu ko demoon sa càmmiñ du la neex kenn ku nekk ci ñun nag nga jël loolu mu natt ko ci càmmiñam bi ci biir këram di fa dund tey bu fekkoon jabaru càmmiñam boobu dafa jël càmmiñam di ko teg fitna yooyu chaque jour ak la ma war a am chaque jour ak la ma war a def ci ci poosam lay génne yow muy jigéen yaay njëkk a kaas yaay njëkk a jàkkaarloo sa jabaru càmmiñ boobu ne ko mënu ko amoo xel ku gàtt xel waaye léegi la moo tax yow nga ko teg càmmiñ jàmbu wala moom du nit wala moom amuti mbokk wala moom kenn waru koo yërëm da ngay ci yenn jigéen ñi naan góor kenn du ko yërëm ah kay pourtant am na góor yoo xam ne dañu war a yërëm am na góor ñoo xam ne dañu war a comprendre am na góor ñoo xam ne dañu war a dimbali waaye tamit ñenn ci jigéen tamit dañuy cuur rek cuur rek su ma dimbalee sama borom kër rek ak ñaareel. ñu bëri waaw ñu bëri tey ci jigéen ñi tey buñ toogoon seen góor kër pour ñu dajale ko daal dañ naan lii bu dajee bu paree da ciy dem takki jabar xalaatoo mu am teere xalaatoo mu am kër bu baax xalaatoo mu am nekkuwaay bu baax déedéet mais yaa ngi naan lii fu mu jaar ma dinaa ko basane chaque jour dinaa am lu ko andi ak ñenn ci jigéen ñoom fi ñu taal seen dëkk mooy ci ordonnance ñoom bopp bu metti ñu bind dem hôpital mu xasil leen tëy seen borom kër bu wàccee fekk ñu xewal ko ci bopp laa bi bi nga xëyee damaa feegoon ordonnance baa ngi noonu lu ma daloon bopp buy métti mu ne bopp buy métti moo ko moo ko xeewal mu dem jënd jigéen ñi dañuy wujjee bay wujjee ci feebar bu kii tëddee tey bu jigéen suba kee tëdd googu góor fu mu jëm jigéen ñi dañuy wujjee bay wujjee sax ci ëmb dangay paraani léegi sa wujju ëmb nga su xëy su dama koo denc nga xëy dem dindi ci sa bos. di wujje bay wujje ci doom ci biir kër gi nangu da doom yi la pour borom kër gi bu génnee àdduna góor ñoo dee di wujje bay wujje tey doom maa ëpp la ay doom parce yaa léegi yow gi yow yàlla moo ne moom mooy ko njëkk a rey ndax yàlla daf ne diw man maa njëkk a sa borom kër yow ba nga war a mën a toog nga ne kër gii tey kii doom yi am man doom yi am nga gis si koo xam ne ay jigéen rek la am di jooy te ay góor la am nga ne diw moo am ay góor man kër bu fekkee da nga jàpp ne borom kër gi daa war a dee moom bi ngeen séddoo alal la ba ngay ci ay jigéen loolu kenn waxuñu dañoo teg suñu bët jigéen jooy xaj ci ci ay jigéen rek la am kër gi amul ci góor te lépp ci bopp kan la tege ci góor moo tax nga góor tey boo ba jigéen ñi ngay takk kenn ci ñoom xim te woowu dara ceew lu bari njaboot ak ngir boo deewee ñu xool ñu mën a séddoo sa alal ba kenn ku ci nekk ci war cee mën a ëppale ba toog ñoom di bëgge di bànneex yow nga di tëdd ca armeel ya moo tax dama ne àddina bi ku fi nekk te jaamoo yàlla da ngay perte parce que fi ku fi dee di séddoo sa alal ngay góor ngay jigéen ku fi dee di góor yor ay soxna góor ni séddoo ku fi dee di góor yor ay soxna ku fi dee ñi ba summi góor takk ko yow ku fi jigéen jaamu woo yàlla ba dee boo dee borom kër gi na nekk beneen jeeg bu la gën a rafet gën laa xob ñoo tëral sa digg kon ki nga xamante ne bii moom laa budda moom ngay wéetal moom rek ngay desal jéemal sa digganteeg moom la tax muy kan muy borom subhanahu wa taala jéemal sa digganteeg moom baax bëri looy julli bëri ay koor bëri looy sarxe bëri di digla mbaax bëri loo xamante ne bii ay bunti yiw la nga gis ko jéem coo sóobu di ci dugal sa laxo mais bul jël sa bopp yëpp ko ci booru kër gi ci biir kër gi rek jël sa bopp yëpp fixé ko ci góor góor góor góor góor ba kañ yàlla ba mu lay bind góor góor taxuloon la mais pour nga jaam ko moo taxoon mu bind la donc la sëy bi jaamu yàlla la mën nga cee am àjjana waaye mën nga cee liggéey du la yóbbu musiba beneen tomb bi mooy mbokk yi jigéen ñi nga xamante ne bii tey seen àdduna yëpp ñi ko toog ci njabarkat yi lepp taxul tamit ñoom dara taxul de ñetti yi dong mo leen di ci kat bu ma am muju wala am naa ko ba pare na dem wala amaguma ko bu mu ñëw wala bu ñëwee xas na ba dugg si moog sama jëkkër moom bu ñu nekk ci jaam lii kese moo leen di yóbbu ci jabarkat te xaalis ba ngay jël di ko yóbbu ci kat gestu ca ginnaaw nga déglu sab yonent lam la waxoon ci dem ci kat yonent bi salaay salaam nee na képp ku jug seqi sab tànk dem ci njabarkat boo jullee ñeent fukki guddi yàlla du nangu see julli waaye ci biir ñeent guddi yooyu ndax wóor na la ci ne dee wala di nga ci bu fekkee sax wax na la nag dam na nga gëm ko mu ne weddi nga li ñu wàcce woon ci man yonent bi salaay salaam te képp ku weddi li ñu wàcce woon ci yonent bi ab yéefar la moo tax yow njabarkat yi ñooy yéefar yi gën a mat te ñooy tonkat yi gën a mat tey ñaata ci ay jigéen ñooy dem man ba ma déggee nag tub njabar turuj ay jigéen ñoo xam ne dañoo kelem natt natt bi ñu ngi koy natt pour la ñi bokk ci natt boobu yëpp ku ci sa jëkkër wala takka wujju dinañ la demal ci sëriñ wala ku ko ci amagul doo ko ci boo déggee moom kii dem kenn la moom bu déggee rek jël na oil bi Casamance la wala Mali ci dëkk yooyu dem pour la na génn wala bu am saa boo chaque weer yaa ngi natt ngir lan ngir benn musiba yow bàmmeel bi jiitaloo ci lu dul ay musiba bàmmeel bi jiitaloo ci lu dul xërëm jiitaloo ci lu dul tërilu jiitaloo ci lu dul pettaawlu kon tey jamu yàlla yi nga xamante ne bi moom la yàlla ëndee woon ci kaw suuf jaamu yàlla yooyu yow lan nga ci def yaa julli yaa dem kon sa julli ga parce que inna tanha anil wal munkar julli dafay dekkale ci nit mu def lu bon ak lu ñaaw kon yow fekk yaa ngi julli te julli googu teeru laa dem ci njaboot nga xamal ne sa julli yaa ngi julli julli googu teeru laa dem ci pettaakat ak xërëmkat ak settat julli googu féetewu ndax julli dafa ñëw di dox sa digganteeg yow lu bon ak lu ñaaw ba doo ca jëm kon seetaatal say julli lan la danga ci waxal ni dama ne la pourtant maa ngi julli de waaye c'est que cest fii àddunay kii la ku fi bëriwul ñu bëri daanu sa kaw koy bëreel sa jëkkër lan ngay bëree moom war na takk kee andi ko bàyyi ko mu dem takk andi jigéen bu ñàkk wóolu boppam mooy jigéen buy dem ci njabar ne sama jëkkër bu mu takk jigéen bu ñàkk wóolu boppam mooy jigéen bi nga xam ne jëkkëram takk la mu dem ci sëriñ la dof maamu dee jigéen a ngi nii di dem di liggéey ab aawoo dem ba tudd turu ndaw si ci sëriñ te mi ngi uuf doom ka ko fa yóbbu ma ngi koy filmer ka ko fa yóbbu moo ni ko naan sama doom ji diw la tudd mooy sama aaw moom lañ ko tuddee na dof mbaamu dee na génn kër na innamal a'maalu li kulli imri'in maa nawaa nit ku nekk gis nga li nga yéene dafay dëppal di ko wàcc sax la mu yéene woon ma wàcc si wàcc kawam ma xam ko xam jëkkëram xam ab aawoo waaye moom lan doon def ba mu toog tuuti audio yi yónnee ko borom këram borom këram jëlaat audio yi yónnee waat ko di ko tas di ko tas ba audio yi dëkk bi yëpp toog ci audio yi keroog ca googu ca ngoor googu ca lañ ko takkal ay bagaasam mooy génn kër googu ak doomam bi ndaw loolu ndax loolu moo nekkoon yéeneem ci kan ci aawoo yàlla daal di jël ko yéene bii ci sa la jëm moo tax nañuy yéenente jàmm kamaatu diinu tu daan yonte bi ku nekk li nga lëg loolu ngay fayeeku kon lan mooy problème ñu dafa war a am lu ñu war a tawit doomu aadama li ñuy xaar di ñu dàq teew suñu kanam chaque jour ñuy añ ñuy reer ñuy ndekk ñuy tëdd ñuy yeew muy kan muy dee ñun loolu lañu war tal nga war xalaat laaj yi nga war laaj ci biir bàmmeel ndax laaj yooyu di ko tontoon déet nga war a xalaat ci ban anam ngay demee nga war a xalaat dee gi buy ci lan la lay fekk nga war a xalaat dee boobu bu ñëwee ndax dina bokk ci ñu yàlla yërëm wala ci ñu mbugal nga war a xalaat man samay jëf ndax jëfal naa yàlla loo xamante ne bii tey lu mu gërëm la wala gërëmu nga war a xalaat lu bari sa diggante ak sa borom mais bu sa xalaat ak sa xel yépp tënk koo ci sama jëkkër su ma wut ci li gën a bon nag mooy na daf na dee te loolu yépp nag. mbirum yàlla la léegi ñun nit ñi dañoo dem ba jël mbiru yàlla yooyu moom rek suñu bopp mm-hmm. tey sëriñ ba ngay toog naan diw na dof na dee dof nekkul ci loxo dee nekkul ci loxo ndax ki koy rayloo moom yorul bakkanam ki koy dofloo moom yorul bakkanam dina def nag imma seytaane jay ko mu ànd waaye mu neex borom bi ci kattanam ak mbaaxam li ngay liggéey dara bañ cee ànd nga échec moo tax bëri na jigéen ñi bari ñoo xamante ne bii ndeysaan da nga leen di gis te bu ñu la nettalee seenu njeeg na ñu njeegoo woon muy njeego bu bon kër gi yëpp nga noog leen takk golo yi takk njëkk yi takk jëkkër takk ba takkaale xariti jëkkër ci njabar gi ci jëkkër yi kese bi dañuy njabar lay njabataale xariti jëkkër bi gën a jege jëkkër ji ngir la mu seen côté njabar golo bi ngir mu far seen côté njabar njëkk ngir mu far seen côté ñëpp ne diw moo baax parce que ay njëkkee ma ki goroom ñëpp moom nañ àndal déedéet sëriñam daa xonq xalimaam daa xonq xalimaam daa ñëw waaye bis day ñëw ci waxtu yi néew at yi néew heure yi néew fan yu gàtt nga liggéey moom ñu koy fayee ci ñaaw te jëm defoon ndax njabar yàgg yàgg la fay tëdd kon ñu njabar boobu tey ñu bëri ci ñun tey ñu ngi ne duñ ko tey dafay demee jël sëriñ xaalis ba nga koy yóbbu mën na jënd benn ginaar nga joñol ko borom kër wala nga toog ko sax reeru kër gi nga am ci tuyaaba wala nga doolee ko dépense nga am ci tuyaaba tey euh, seetkat yi nga xamante ne tey ñu ngi ci internet bi foo dugg tey ci TikTok ba YouTube ñu occupé ko fi nga toog ngay toog nee na mi seetal la tegtal la fa la dëkk génneel sarax sàngam tey xaalis bañ lay laaj wallahi billahi wallahi wa tallahi boo ko toggee woon leeru kër gi ngay sëy def ko fii sabilillah yiw yan cay am moo ëpp téeméeri junni yoon wala am nañ am nañ am nañ am nañ dañoo dem ba suñuy xel dañoo mel ne ñun ñu lof dañoo mel ne ñu teqali dañoo mel ne ñu réer dañoo mel ne ñu gërëm dañoo mel ne ñu dañ fiy sax kii ku la fi dig na danga sax nax na la bi kenn fi sax fii ku lay dig ne àddina bii am nga fi lu ëpp jaamu yàlla nax na la parce que jaamu yàlla lañ la fi indee fii ku la fi dig ne ëllëg yowmal xiyaam moom amee na la fa pantere wala benn mètre carré boo xamante ne bii tax na nga war a nekk ci kaw suuf def lu la neex nax na la te kenn amu fa dara yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma lillah te ëllëg yowmal xiyaam kenn amu fa dara lu fa waay am borom bi moo la ko jox kon li ñu war a yittewoo ci suñu bopp mooy jaam borom subhaanahu wa taala li ñu war a yittewoo suñu bopp mooy dimbandikoo borom bi ci suñuy mbir li ñu war a yittewu koo mooy sukkandiku ci borom bi li ñu war a yittewu koo mooy booy mer meral ngir yàlla booy bëgg bëggal ngir yàlla bu la nit tooñee mënoo koo jéggal kalaameel yàlla bu fekkee sa wujj la sa jëkkër jenn na ca moom kalaameel yàlla bu fekkee nag yow sa bànneexu bopp la nga ko bëgg a teg sa bopp yow la ñuy kalaame yàlla parce que sëy bi da nga koo bëgg a jël teg ko ci lu yoon kon àdduna bi liñ fi yàlla indee jaamu ko la du ay fo du ay caaxaan nekk loo xamante ne bii dañuy ñëw ci kaw suuf si rek dee nañ jeex na déedéet ku nekk di nga jëf ëllëg yow ma xiyaama dañ la koy laaj di nga tegee di la sant di la préparé loolu laa jébbal fekkee jëkkër ga taxoon ngay defante la jàpp ca jaar ba gis nga bu la buñ gasee pax ba suur la ba pare moom bu ñëwee ba organiser ay ganam ba pare xamul ñu njëkk a xalaat moom ban jigéen la war a takk ci semaine bi bu la mu ñëwee ñi ci nekk góor tuuti ñoo leen mu ñëw sax semaine ñi ci góor nekk góor ñoo leen mu ñëw tuuti semaine waaye léegi ndax kooku jàpp na yow sa àdduna yëpp nga sànq ko ci ay njabarkat màpp sa jaamu yàlla moo tax borom subhanahu taala mu ne innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu naar wa maa li zaalimiina min ansaar képp koo xamante ne bi bokkaale nga ak borom bi dara ba dee ci bokkaale googu yàlla neen dafay araamal sa yaram àjjana yow doo dugg àjjana ba pare mu tàbbale li nga xam ne mooy safara te nee na ëllëg tooñkat yi kenn du leen dimbali ña ñooy tooñkat yi ci kaw suuf léegi yow ndax loolu jar na ko ci kaw suuf nga sànq sa àdduna sànq sa àllaaxira mbokk yi nañu delloo si suñuy ne ëllëg dafa am lu ñuy xaar metti nañu xalaat bis bi yàlla di wàccee jantam bi ba suñuy ñàkk ñu ciy rab nañu xalaat bis bi yàlla di wàccee jant bi ba yenn yuur yi di baax nañu xalaat bis bi yàlla taxaw di bàkk li ba leen mulkul yow nañu xalaat bis bi nga xamante ne bii safara day mëbb di laaj yàlla ay jaamam yàlla di ko jox ba yàlla jël tànkam bii teg ci ndax bis boobu ñu ngi koy xalaat. ndax yow jigéen jullit yow yaa ngi xaar santaane yàlla yi nga sant benn ci lijaar bi nga lànk defoo ko ndax yaa ngi xalaat mees bi ngay def sa bopp yàlla xaraamal na ko nga lànk xeesal bi ngay def yàlla tere na ko nga lànk yaa ngi benn baabu yàlla sa doo ko def ci buntu kër rek ngay toog kenn bu ku romb nga teg baat moo tax dama ne li gën a ragal sama dund mooy toogaayu mbett yonent bi dafa ci am lu mu a wax sallallahu alayhi wa sallam boo demee ba mu jotoo mën a toog ci mbedd bi sàmmoonteel ak àq mbedd ma mooy ku loo romb nuyu la delloo ko nuyoo ba waaye bul jël sa bopp ko sànni tey ñun jigéen nag da nga romb buntu ko yu fees dell ñu toog fa ku romb teg nañ la baat ku romb rek am na ñu war a wax ci yow boole yaa ngi futti sa yaram meloon na nga war a mel yoroo comportement jigéenu jullit dee mi ngi ñëw saa su ne sa kanam. temps yee passé yàgg dara la dugal ci vidéo koo xam ne élétaayam lañ koy wax xaw ma fi ñu doon fekkeel ci la la këndam dee kooku buñ ko waxoon ne ci foofu ngay deewee ndax dina dem ca loola ndax ñu doon di ay góor dina toog seeni kanam di wuñu awraam di fecc wala ndax yow dee buy ñëw def naan la maa ngi ñëw préparé waajal amul kenn koo xamante ne bii ci ñun dee dina la dikkal nga toog naan xaaral ma daw julli ñaari rakka seeka se à dire xaaral ma daw muur sama yaram que dee gaañu ñëw bi yow malaaka bi yàlla ki lay jël si nga di ko mu ne la jàkk nga ne ko jàkk muy ñëw war sa ruu gi nga a wuy ji sa borom moo tax borom subhanahu wa taala di wax naan wa maa tadri nafsun maadaa taksibu gadan wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut amul fi kenn ku ñu ku xam ëllëgam waaye kenn ku ñu ci ku xam ci ban suuf nga war a génnee àdduna léegi kon lan mooy te pourtant yi ñu nekk suñu kanam dafa bari ñun en tant que jigéen nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne isa salatil mara xamsaha wa saamat sahraha wa ataat zawjaha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha daxalat jannati rabbiha nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jigéen bu jullee julli juróom woo weer ko sàmm pëyam ngir borom kër topp ndigalu jëkkëram ci kaw neex yàlla dina dugg àjjanay boromam àjjana yàlla daf ñu ko yombalal de ñun ñu ñëw ñun jigéen ñu ñoo def fekk suñu bun àjjana yëpp ñu ñu jël suñu caabi tëj ko jël caabi ya sànni benn ne yàlla li nga sant mënuñu ko ñu mbir mu raay gi beneen bi topp jëkkër yi ñu ko ñaareel bi ñàkk a taxaw ci santaane borom subhaanahu wa taala moo tax suñu kër yi ñu ngi mel ne euh, sébb tàng jëpp li war a sébb boobu mooy njëkk a lànkal borom bi ñu boo duggee ci kër yi rek lànkal yàlla moom mooy njëkk a feeñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam la moo taxoon këram neex déggal gañ déggaloon borom bi ay soxnaam ak i doomam ak moom ci jëmmi boppam lii moo taxoon yonente bi këram neex ndax yonente bi ay étage la amoon sallallahu alayhi wasallam ndax ay oor ak jabaati kurus ay armoire ak lan nekkoon ci ay néegi soxnaam waaye la moo tax këram dal yàlla ñu nag tey suñuy problème mooy suñuy kër jaamu yàlla amu fa da nga ci gis borom ne fii dina tëdd atum mu bam jeex du jik yee soxnaam ci xiyaamu lay di nga ci gis soo xamante ne bi du soññu njabootam ci jàng Qur'an du leen soññu ci julli du leen soññu ci woor du leen soññu ci daray mbaax ñom lepp rek ci pajaxatum àdduna lañ ko gaar kon ñun dañ ban problème lañu am té pourtant yalla wax na ak ñun wax na li tax moy andi ñu wax na li tax mu bind ñu wax na li tax suñu ñu war a ci kaw suuf wax na li tax dañuy fekk lepp borom bi andil nañ ko ci kaw ci ci ñu bindee lépp yónnee lañu ak yonent yonent boobu gandal ñu lepp yonent bi salaay salaam amu dara lu ñu desal jangal nañu lepp waaye ñun tey ñun lan mooy suñu problème moo tax yaa Aysa bi mu ñëwee yenn sa laaj la bi mu jógee Isra wala Mi'raaj ñoo leen yaa Aysa <coughs> safara jigéen ñaa ko ëpp yaa Aysa jooy wallaahi jot na jooy mu ne ko lan lan lañ def ba bari safara mu ne ko dañuy weddi jeeg tey sa boobu ko lu nga mën ci defal ci lu baax bu saa ngeen am problème nga ko musoo maa defal dara. mais ñun jigéen ñoo fi gàtt wet yi nekk li ñu waxante dëgg ñoo fi gàtt suul jëf la dana fi gis koo xamante ne bii weer bi yëpp borom kër dina lekk ci borom këram lu ëpp deux cent mille waaye mu am benn soxla deux mille francs borom këram la ko tey mënu ma ko rek de mëna ko yàlla xam ne mosoo maa defal dara man noo ko doon laaj sax maa ko def te pourtant boo nattee ne weer bi lépp nekk nga ci moom lu ëpp deux deux cent euh, euh, kii mu mu tuddati deux cent mille wala rek nga lu ëpp ci moom cent mille waaye tey benn soxla bi yàkkamti nga ko mën a mënal ma ko wala aw ma ko nga xasee ko wala nga xuloo ceeb moom kon jigéen ak góor ñoo yem képp ci yàlla li li ñu farataal ci góor ci topp yàlla loolu lañ farataal ci jigéen ci topp yàlla liñ sant góor ci topp yàlla loolu lañ sant jigéen ci topp yàlla ëllëg yowmal xiyaam amul ku fi yàlla taxawee naan jigéen ñi. góor ñi ñoo leen ëpp ci ay jaamu li la ñuy def déedéet ku nekk la nga jëf ngay yóbbu ku ci nekk ci ñun li nga jëf loolu ngay yóbbu ku ci nekk ci ñun li nga jiiteeg sa mbaam mel loolu nga fay fekk. bu fekkee yow sa jëkkër nee na du julli nga ne doo julli yéen yaa ñëpp bu ngeen deewee dañ leen di yóbbu fa ñu yóbbu ñu dul julli bu fekkee sa jëkkër yow dee du woor yow it nga ne doo woor noona bu fekkee yow nga ni sa jëkkër moom di topp yàlla nga ne man mooy sama kilifa comme ni ko Sénégal di waxee li sa jëkkër doom ngay doom fii da ngay dégg ay jigéen yu bari di ko wax du ma julli parce que sama jëkkër du julli te nee ni sa jëkkër doom ngay doom loolu ban diine la fan la ko yàlla wax wala yàlla du ñuy bind daf leen bu ngeen demee topp leen jëkkër ci jaamu yàlla yi mu leen sant déedéet yàlla daf ne nañ topp jëkkër yi ci kaw lu ko neex moom sa jëkkër bu taxawee ne di julli àpp ci sax sëy bu tas doo julli du ma sëy yow sëy nekkoo di julli wallaahi àpp ci bi tax te sëy boobu bu ci dasee yàlla remplacé na góor bi ko gën sa soxna taxaw ne ànd ak bee moom coow bii du ko këpp ci suuf te ñaar ci ay jigéen ñooy xëy suba ba jant si waxtu yu yëpp ñu leen koy maasaar leen daal kenn ci ñoom ñu gërëm ci suuf toog nag toog ci benn fiyato bu ñuy wax lan seen fiyato indi yooyu nga melaan nga xom nga gis nga toog ñu tegal la film bi deux heures ci bët jël ba lan ba ñu nootu ci siyaar yi sa njaboot doo këpp sa jëb yi ci suuf doo ko digal sa njaboot nga toog say doom di xool naka su noonu di xool ay nit yoo xamante ne ñu ngay di fo sa doom toog sa biir kër sa biiru saa yow yaay yaay ni toog toog ñu ni toog ñuy jàngal sa doom nan lay fooy moo tax tey ñaari ci xale ngay gis tey ñuy foofu foofu yoo xamante ne bii jaaruñu kenn jaaruñu fekk ñu ko jàngee ci seen biir saali ndey ak baay te ñu ko jàng seen ndey ak seen baay ñu ngi toog moo tax responsabilité bi nga xam ne borom subhanahu wa taala teg nañu ko il faut ñu nangu ko waaye bu ñu ko nangoo il faut ñu taxaw ci waaye bu ñu ci taxawee il faut tamit ñu jël suñu kem kattan ci loolu ci sàmm gi nga xamante ne bii moom la yonent bi ne ëllëg kenn ku nekk ci ñun ma te la mën a sàmm dañ la koy laaj kon mu nekk loo xamante ne bi tey lu tumurante la ci suñu réew lu rafet ci suñu réew muy lan muy jaamu borom bi depuis nawet bi amee ba tey ñaar ay dëkk moo taw tey ñun ñoom jël loolu def am njàngat tey Sénégal fii ñu nekk nii tey Dakar comme Sénégal tey suñu suuf muy ñoo fexe ba tey ci biir région de am na fenn solo wàcc nit ñaa ngi bëgg a dégg ndax léegi loolu dañ koy jël naan yàlla tàng na tàng na tàng na tàng léegi est-ce que duñ jëlaat mbir mi delloowaat ko suñu bopp ci suñuy bàkkaar yi rek tey boo xoolee béykat yaa ngi fees jëlee ci ay góor ak jigéen futteeku di foofu te tey boo xoolee mbedd yaa ngi fees jëlee ci ay jigéen yu wax rek ci futteeku ne dafa tàng ndax loolu bokk ci mën a téye taw ndaxte bokkaale li nga xamante ne ni ñu koy def ci suñu réew di jël ay ni tegeel place yàlla di jël ay nit solal leen bëggum yàlla di jël ay nit di xas ay saxaaba di añ ci borom asamaan ak suuf ak i yonentam di leen wax naka suñu la naka loolu mën a jigéen ndox ndax jigéen yi nga xam ne futti leen seeni yaram di jaay seeni bopp tey ñu leen di filmer di leen wane naka loolu mën a jigéen ndox aka tey parce que bàkkaar day dem taw tey ñu war a taw yii ñëw tey yenn taw yi nga dégg gum ñaar na taw yooyu am na ñuy jot a dee am na ñuy jot a yàq ndax léegi taw yii ñëw yoo xam nga li muy indi moo tax boo gisee asamaan siin bul béy mukk da ngay ñaan yàlla buy ñëw yàlla na indi jàmm yàlla na indi xéewal moo tax tey ñu bëri ci ñun bàkkaar yi ñuy def tey suuf si tilim gi mu tilim ci ay bàkkaar moo war a tey problème yi bari suuf si tey tiram ci ñu tiram ci ay moykat moo waral ay problème yi bari tey problème ñëpp ko jël ko ji ay njiiti réew déedéet nañ ko delloo suñu bopp ay góor ak i jigéen tey mooy yàlla di dem na ba ci biir kër yi njaayum sàngara ci biir kër yi tux yàmbaam ci biir kër yaay yi ci biir kër yi jug sann ba set romb sa yaay yaay moo gën a xam fa nga jëm moo gën a xam xaalis bi koy andi fi koy jëlee waaye déedéet li jënti wul loolu waaye ñu ngi li jënti moom ku ne xam ni nga koy andil ngay dem di jaay sa yàq di dundee en tant que jigéen ak cër bi la yàlla cërale en tant que jigéen di nga xamante ne bi tey olof bi dañ naan bi jigéen mooy jigéen nga dem fuddil sa bopp ay góor jox sa bopp ay góor ñoo xam ne kenn du sa borom kër pare ku ci nekk jël lam lay jox jox la ko nga toog di jël loolu di dundee jamono ba nga koy lekk ndax sa conscience tranquille la jabar ba ngay jël alal jooju ñëw di ko jox sa yaay muy lekk di bëggee ci guddi gi nga fanaan ni jaay sa bopp jaay sa yàq ba pare yow di jël loolu di ko dundee waat ci yàq bi la yàlla jox nga sa bopp jël alal jooju ñëw di dundal di dundal say waajur say waajur toog di bëggee bu jigéen wallaahi bu yàlla may njaboot te yaroo leen ci yaru diine yaroo leen ci yaru am nga responsabilité bu rëy ci kanam borom subhanahu parce que ay nit a ngi dund ba dee suñu doom ay nit a ngi dund ba màggat mënuñoo am doom loolu yàlla na doom jooju nga ne ko futti sa bopp parce que yaa fi góor yaa fi jigéen ñaa war a yoon sa doom indi téléphone bi cher téléphone un million cinq mille li jënti woo sax sa doom téléphone bi fan ko jëlee waaye dañ ma koy sa li nga liggéey mooy lan doom ju bon ciy jaay boppam yaay yaay ju bon mooy doom yaay bi nga xam ne lan nga liggéeyee doomam mooy doom yoo xam ne day sol ay góor di fo loolu nga liggéey ci biir kër baay ëllëg doom jooju moom it la liggéey ëllëg moom it loolu liggéey mu nekk loo xam ne lawtal lay doon moo tax ñu jigéen wallaahi ñun jigéen ñu war a defaru lan waaye ñun dañoo war ñu yam ci defar waaye dañoo defar war a ci sa njaboot defal ci kër defal ci société bi nga nekk mais tey kuy foo jigéen ngay jëlee ba ki dem laa digg TikTok ay xale yu ndaw lañ jël pare préparé la du ma ko tudd sax di leen publicité yéen ñëpp yéen a ma gën xam télé bi wax. xale bu nekk présenté la boppam di wax bom bom wax bom dëkk numéro nangam daanaka bateel leen ma ci lan lañ koy xale bu taxaw ci podium jàngoo Alxuraan waxul yàlla nee na waxul yonent bi am na benn musicien boo xam ne idola moom la war a toppandoo. yaayam ak papaam ngem ko mu war a ñëw taxaw. ëllëg doom jooju tuuti nga gis ko ñi ko nekkoon ci ay 2002 ay 2003 tey xale yooyu nga gis ñoom ñëpp ñooy ñoom ñëpp tey la doon nañ ay doom yoo xam ne amuñu ko ci yoon. parce que la parce que buntu njaaloo la musique buntu njaaloo la seen événement yooyu ñuy woote ay événement wu kaay leen mooy kaay leen njaaloo kaay leen ngeen. suppi seen i yaram kaay bi ngay nekk jigéen ñi yées ci seen askan ñu tey Sénégal fan lañ toll tey jël sa doom amoo dara loo yéene sa doom bu taxawal ci këram de jaay sa bopp subaa ji dox la ci ay millions jël sa doom yóbbu imaam yi yóbbu Europe di fooye ci naar yi ko dugal ci ay auberge di fooye nga di ci teg sa ba yow yaay doo wax parce que parce que jël nañ benn un million pour faire wax lan mooy un million yow cër bi la yàlla cërale yow jigéen bokk a ci cër yu rëy yooyu yàlla jël lu toll ne saa ci Quran tuddee muy sotu misaal ñu ne déete waaye mu jëlaat ci biir jigéen ñi al maryam al batur tuddee ko saa ci Quran ñu ne déete waaye yàlla jël lu ne nit a ci noppam war a xam ne karam naa bari aaram dénk la yow jigéen yaay ëmb di moo tax ñun jigéen ñi war a ragal yàlla nag conséquences yi ci ëmb jigéen ku fa war a ragal yàlla la mais ñun asaf tey booy seet ci biir dàq kaw suuf tey ci ñi dàqal toon ci kaw suuf mooy jigéen te jigéen moo war nekk koo xamante ne biñ exemple bu rëy la war doon te walaa dégg benn ministre taxaw nee na islam dafa dafa la dafa jigéen ma ne ko waxoo dëgg da ngay fenn islam moo teral jigéen moo génnee jigéen ci buumu njaam gi ñu ko tënkoon génnee ko daf dafa day xoriya tey ñun bu amee sañ-sañu taxaw di wax bu ñu amee sañ-sañ taxaw di muur suñu yaram bu ñu amee sañ-sañ yu jublu kenn dasuñu xum suul bu ñu amee sañ-sañ suñuy bàyyi dee ñuy doon bu ñu amee sañ-sañ suñuy jëkkër dee ñuy doon tey moo ñu ko may muy islam kon dañ daan jëngan jëfe islam mais tey yàqkat yi féministe yi ñi nga xamante ne dañoo yées alako taxaw ne tey islam dafa toroxal jigéen dañuy kàcc islam moo defal jigéen islam moo teral jigéen islam moo tax jigéen séddi tey ku fi am ndam ci jigéen islam moo la ko jox waaye ñooñu ay nit la yoo xam ne ay éléments iblis la ñu préparé leen ngir lan ngir yàq suñu jigéen xel bañ leen lànk leen téléphone bi ëllëg da ko fiy bàyyi dee a mu yàqu alal ji da nga koy lekk mu jeex bàkkaar fi sa yaram bi nga futti suba sax yee koy mujjee lan mooy suñu problème ba dox suñu diggante jaamu yàlla am problème lañ am ñun en jigéen kon tey jigéen fi ko yàlla di xaar mooy mu nekk ku pare mel na jigéenu démb ñan mo suñu way ndax moy ñu bon ñi tay ñi exposé ci internet bi déedéet ñun suñu royuwaay ya yaa Khadija ya, Aïssa Soumaïa ñii mooy roy ñoy roy way Fatima ñoy roy way ci ñi ngay dem fekk fa sen tata nek yow nga dem tànq xaja naan nga mucc pexe aduna pexe allah ñoo roy way mais ñi ci dess ñepp duñ ay way ay sankati kat lay ay nit yu alaku lay ba bëgg alakay suñu askan kon bañ jeen kon dama ne jigéen ñi nañu takk taxaw ci biir kër yi ci njaboot bi waaye takk taxaw ci téléphone yi suñu doom di taxaw ci télé yi suñu image yi suñu doom di seetaan takk taxaw xool suñuy doomi jigéen seen comportement seen colit lan la war a doon ñu taxaw ci xeex ci loolu ngir ne ëllëg nga war a mën a defar société parce que boo defaree doom bi ci biir kër bi nga defaree ci biir kër bi rek la yem génn day génn ba ci société bi kon li ma nekkoon li ñu tënkoon subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh